ñu liral leen situation wu bés bi dimanche ñaar fukki fan ak juróom-ñeent c'est mars 2020 ministère de la santé et de l'action sociale journal résultat examen virologique yi ma di liral ci téeméer ak durum fukki ben test fuk ak ñoo ñëw positif muy ñenti ka importé ak juróoma ñetti ka yo xamantene ka contact la ñu yëgal leen tam ne bésu tey bi juróom-ñeenti patient wér nañ ñu weer leen génnee ci waxtu yi ñëw ñu yëgal tam ne ñi ñu hospitalisé ñi ngi yëg tan si bësu tey bi ba ñu commencé ak léegi téeméer ak ñeent fukk ak ñaari cas la ñu déclaré fii Sénégal ñaar fukk ak juróom ñaar ñoo si wër bon dëgg mën nañu wax ne téeméer ak fukk ak juróom ñoo nekk si hôpital ñu hospitalisé leen ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi leen di ñaan ngeen topp bu baax ay ndigalam pour que ñu mën a daan Covid 19 bi